bi nga xamantene euh, commission de contrôle bi def na un rapport global bi méngoowul ak ñom sax rapport yi nga xamantene ñu produire par région donc lolu déjà moy premier objectif bi benen bi moy à ba li nga xamantene ñum dal na coalition PC e jàppo mu baña dal yenen candidat yi te pour ñu def ko il faut que ñu alerter commission de contrôle bi ndax ay informaticiens ñooy liggéey rek jox leen xëy am na erreur yoo xamante ne ñoom duñ ko gis kon bu amee koo xamante ne gis na erreur yooyu mu wax ko day tax ñoom it dinañ ci gën a bàyyi xel beneen bi aussi mooy fexe ba yeneen candidats yi ñu gën a bàyyi xel ne leen nag ñu moytu ñu gën a bàyyi xel si risques yi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk bu ko defee ñoom it ñu gën a indi lépp li nga xamante ne moo ci war pour erreur yooyu bañ am ndax 20 candidats ñoo jàll des na 73 candidats donc 73 candidats yooyu bëgguñu li nga xamante ne dal nañu ak désagrément yu mujj mu dal leen ñeenteel bi nag moom mooy euh, wax commission bi PC jàppoo mu ngi koy demandé mu defaat li ñu ne mu compté li nga xamante moom la ñu am ci ay parrain ndax nag dafa ci am solo ñu teg lépp rek ci dëgg. boo jëlee région Ziguinchor rek parce que 3950 parrainage la ñu déposé ñoom it moom la ñu bind ne moom la ñu déposé mais nee nañu xàmmeewuñu ci kenn. Eh, mais boo jëlee rapport bi nga xam ne ñoom joxe nañ ko muy rapport erreur yi eh, boo jëlee téeméer ligne page la ak fukk ak ñeent si téeméer page yi ak fukk ak ñeent yooyu page bu ci nekk am na 18 lignes ligne bu nekk daanaka benn nit la compté mais boo jëlee 18 yooyu nga multiplié par 114 mu ngi lay jox 2052 personnes te ñoom nee nañu si 3950 yëpp gis ñu kon ñeneen ña ca des anañu moom mooy leen mille huit cent quatre vingt dix huit personnes mais ñun bu ñu jëlee boo xoolee rapport bi dafa am ñoo xamante dañu ne lii erreur la mais ña ca des duñ ko wax dara maanaam comme ñoom si seen bopp gisuñu loolu mooy erreur dugal nañ ko nee nañ erreur la mais xamuñu ban mooy erreur bi kon ça veut dire que côté boobu amul erreur ñooñu boo dindiyee loolu nga compter li nga xam ne ñoom nee nañu lii erreur la rek da ngay gis ni région de Ziguinchor ñun validé nañ ko. boo jëlee région bu mel ni eh, Matam. rapport de 58 pages. la fait, le même exercice 58 pages nga multiplier que par 18 lignes dalay 1044 personnes yo xamantene xeyna identifié wu ñu leen ñi fa identifié wu 1044 la te Matam ñun 2296 par ce qui veut dire que ñun Matam même bu fekkente ne ñom ñi ñu wax euh ay erreur la dinañ fa déssé nu mu 1256 par an kon loolu bu da fay jur jiixi jaaxa si suñu xel parce que da ngay muju nan kon ban fichier la commission bi di contrôler parce que li ci gëna graw moy ba légui ni candidats yi kenn xam ñoo ngi jëm élection ne mais kenn gisu si fichier bi donc moo tax ñu PC e jàppoo dañuy ñaanat commission de contrôle parrainage bi ñu xolaat li nga xamantene mom moy rapport bi ñu def ndax affaire vous passé dañuy defaral notification notification bob amnañu occasion pour corriger li nga xamantene mom moy erreur bi ñu def